Seneinfo International. Seneinfo International seneinfo.net dalee nag jàmm si lu gën a fes si xibaar yi jeudi 30 novembre 2023. bés bi lañ koy ndooree bés bi nga xamante ne ñëw na si troisième mandat bi. Euh, nee na le F24 change de logiciel ñoom ñi nga xamante dañoo nekk euh, F24 euh, ci coalition boobu nee nañ dañoo bëgg a changer logiciel parce que dañoo bëgg ay élection transparent donc ki nga xamante moom mooy Mamadou Mbodj et si donc ils ont mis à la disposition de leur candidat un logiciel anti doublon externe ñoom dañoo dañoo bëgg ñu éviter li nga xamante ne mooy doublon yi. loolu mooy waral ñu initier ay logiciel. anti-doublon vraiment la plateforme euh, réclame la libération aussi de Bassirou Diomaye Faye et si ñoom ne nañ dañoo bëgg ñu génne aussi Bassirou Diomaye Faye euh, ak euh, ay jege ñaaleem donc loolu la journal bi xëy xamle tey à saa une. Euh, laas rek laas aussi mu ngi ñëw ah si euh, kii boobu rek euh, mu ne la gauche tel le phénix donc comme ni ngeen ko xamee am na si candidat yoo xamante ne ñu ngi nekk si opposition bi ñoom nee nañ dañuy def candidature unique dañuy dajale seen seen seen lépp daf boole wu def li nga xamante moom mooy candidat unique ki nga xamante ne moom mooy Mamadou Diop Decroix bokk na si ki nga xamante ne Cheikh Tidiane Gadio ak ñeneen i candidat lu toll si six candidats ñoom dañoo bëgg a rek dajalewu ah, booloo pour nekk benn def une candidature unique pour dem si élection présidentielle de février 2024. Euh, source A aussi moom mu ngi ñëw si euh, Pastef rek ex Pastef comme on dit mu ne la trouvaille euh, de Pastef donc nee na ses comptes bancaires saisis et son transfert d' argent comme anéanti donc loolu la journal bi xëy fesal tey à ah, sa une. donc euh, ñu ñëw rek euh, si bracelet électronique ñu ne euh, affaire après avoir écrit que Moustapha Diop membre du PASTEF en fuite était sous bracelet électronique ñu ñëw si Walf Quotidien Walf Quotidien aussi nee na à sa une argument pour Amadou Doué donc donc nee na inauguration d'infrastructures tournée promesse donc est-ce que voilà mu ngi posé ay question est-ce que nekkul pour Amadou Weye li nga xamante ne mu jël kiw Amadou Ba pour Amadou Weye donc euh, loolu la journal bi ñëw xëy fësal à sa une euh, présidentielle 2024 une grande euh, une gauche plusieurs têtes nee na une gauche plusieurs têtes opposition bi la ñuy wax ñoom ñi nga xam ne ñoom dañoo décidé booloo pour def candidature unique ah à l' élection présidentielle donc journal bi xëy aussi ko à sa une les échos moom dafa ñëw si li nga xamante ne moom mooy. compagnie aérienne yi nga xam aérienne yi nga xamante ne ñu ngi jàppale émigré yi pour ñu voyager donc journal bi nee na les les USA sanctionnent les compagnies aériennes passeurs de migrants loolu la journal bi xëy atel xamle donc euh, journal bi ñëwaat si journal bi rek ñu ne rabat d'arrêt de Ousmane Sonko point positif et limite d'une décision à risque journal bi aussi ñëwaat si euh, gëstu def saa si gëstu bu yaatu yaatu ne bonne nouvelle les juges de la chambre administrative ne siégeront pas. Euh, une mauvaise nouvelle, il n'y a pas de procédure d'urgence en cas de rabat. La requête au fin de pouvoir déjà se défier à l'agent judiciaire. Donc, li nga xam ne moom mooy rabat d'arrêt bi nga xamante ne avocat Ousmane Sonko yi demandé woon nañ ko euh, nit ki barke démb donc euh, journal bi mu ngi ñëwaat ci les points positifs et limites de de la décision et les risques donc voilà loolu la journal bi xëy te xamle à ñu ñëw rek si euh, Sud Quotidien Sud Quotidien moom euh, moom dafa ñëw si euh, transparence et sincérité de l'élection présidentielle comme ni lañ ko waxee rek le M24 sonne l'alerte loolu la loolu la la loolu la publier à sa une donc ñi nga xamante ne moom ñoo nekk jege ñaale ñi nga xamante ne moom mooy waa M24 ñoom dañoo def benn logiciel boo xamante ne c'est anti doublon lépp loo xamante ne doublon la. Euh, ñu ñu ñu kii ko ñu mën a la journal bi xëy fësal ne le F24 sonne l'alerte donc euh, loolu la journal bi xëy fësal tey à sa une. Vox Populi Vox mission d'évaluation de la CEDEAO débarque au donc euh, na mission boo xamante ne CEDEAO voilà moom moo ko yónni mu ñëw am na c'est dans le cadre de la présidentielle de 2024 donc mission bi ñëw na déjà présent jàppale ne mission boobu de la CEDEAO boobu ñëw na. Sénégal actuellement en ce moment présentement mu ngi Sénégal pour euh, lépp lu nga xam ne moom moo war euh, soxal élection yi mission boobu d'évaluation boobu moom mu ngi fi pour saytu laa dal li nga xam ne war a jëm si élection euh, présidentielle bu 2024 journal bi ba tey rek mu ngi wax transport interurbain bi di nga xamante ne BRT bi comme ni ngeen ko ni ko xamee 121 bus moom moo nekk si parking bi pour pour le moment donc Euh, léegi euh, transport bi dina commencer berte bi dina commencer en en fin du mois la fin du mois la fin de, de, de décembre le 27 décembre plus précisément si lay commencer di dawal fi nga xamante ne si biir dëkk bi donc ñu ne euh, tarif yi nga xamante ne moom la ñu moom la client di fey si BRT boobu c'est entre 300 et 500 francs CFA pour le trajet Guédiawaye centre-ville en 45 minutes donc nañ jàpp ne BRT bi bu commencé usagers yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo koy jël dañuy fay entre 300 et cinq cent francs bu fekkee te dañoo jógee Géejawaay pour dem euh, centre ville trajet boobu nag ñu ñu ne ñu dafay durer quarante cinq minutes journal bi dañu ko xamal defal nañu su gëstu bu yaatu yaatu. chers internautes de Seneinfo International seneinfo.net li la leen indiloon euh, a fës si xibaar yi jeudi 30 novembre 2023 ñu ngi leen di jajal fa bu baax a baax si bi te di leen ñaanal yendu jàmm. Seneinfo International.